bon am na benn benn kuréel démb bu tudd Front euh, démocratique pour une. Euh, élection inclusive moom mooy euh, PDS Decroix ak ay les Cheikh Tidiane ak kii affaire yooyu ñoom ñuy wax ne dañuy faut une reprise intégrale du processus électoral ñoom dañuy caaxaan wala. non romb nañu caaxaan dañuy foog <laughs> non quand même il faut sérieux dans ce pays. Ah oui quand même on dem non gars yi dañuy liggéey ba toll fii le processus électoral xam nga la moo si des. je crois fu mu toj sax non gars yi ils sont dans la récupération politique dañu dëgg. fu ñu toll fu ñu toll le processus électoral mooy uniquement dem campagne dem élection mais lépp def nañ ko lépp dépassé nañ ko.